waaleykum salaam wa rahmatullah ñoo ngi leen di fay bu baax soxna si di nuyu waa réew mi yëpp ak euh, fu waay mën a nekk ci àdduna bi di nuyoo la sama bopp man maa ngi tudd alxasani yu nuurullah maa ngi dëkkee Touba maa ngi bokk ci njabootu Serigne Touba. naa ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi gërëm bu baax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul suñu yaakaar di wax ne li nga xam ne nag euh, moom ci la ñuy yëngu muy asraar la. asraar nag mi ngi tekki géej euh, ñun ci la ñuy yëngu gannaaw bi ñu ci juddoo ndax ñun ci ndey ak ci baay li may wax nii nag képp ku muy dégg te xam moom du ko weddi waaw euh, ci la ñu juddu euh, mu nekk ci suñu deret yamul foofu ñu nem nag jàngi ko ay at yoo xam ne gëstu nañ ko mën naa ni lu mat vingt cinq ans yoo xam ne bu ma weesoo lu mat dix huit ans laa commencé jàng lasraar ñu xam ci nag tuuti loo xam ne mën nañ cee def mën nañ cee dindi euh, dem nañ ci dëkk bu ne nag ndax dama koy faral di wax nee naa dem naa ci xam-xam bi jàng naa fii ba Inde dem naa fa di gëstu wàllu xam bi ma jógee loolu tamit yàlla dimbaluñ ci yàlla barkeel ñu ci euh, am nañ ci lu ne mboolem lu ñuy nee ñeewe nit rek ñun ñu ngi ciy sant yàlla suñu asraar bi moo nu ko may amul laneen luñ mas a liggéey ci àdduna loolu loolu Euh, ba tax na ñun daal ci loolu lañ nekk euh, teg ko nag ci fulla ak faayda ak ci ragal yàlla ndax dafa nekk lu sensible nekk loo xam ne tamit ñëpp daw nañ jëm si ci léegi waaye nag euh, dafa am ñoo xam ne moom ñoo ko moom te buñ ko bàyyi woon nag ñi ko moom rek defe naa ni affaire bi du la bëjoo comme ni ma la ko waxee rek ñun nag dañoo judd fekk ko Euh, mu nekk loo xam ne mënuñu faaw ñu def ko waaw mu nekk ci suñu deret waaw xam nga buñ xasee ba wékk ci loo xam ne géej la moom duñ mën a euh, féetewoo ci benn boor mm. waaw waaye comme niñ la ko waxee rek ñi ngi ciy def ci ci dindi maanaam ñi ngi ciy faj aajo mm. nit ñi maanaam képp ku am jafe-jafe maanaam ci wàllu soxla sa àdduna ndax jafe-jafe moom fi lañ ko fekk mënul ñàkk bañ na ko ba alxuraan sax moo ko wax fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra maanaam euh, loolu moom dafa bokk ci dund doomu aadama maanaam mën ne nit bu doon day am courant xamal ne jafe-jafe ak mbégte moo koy dundal loolu dafa mënul ñàkk moo tax yàlla sàkkal ñu euh, wàcceel ñu ci alxuraan euh, ñu di di ci jëfandiku di ci ñaan te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ad-du'a silaa'ul nee na ñaan moom mooy ngànnaayu jullit loolu li tax mu wax ko yàlla moo ne ñaan leen moom may leen xa yàlla mu ñu sàkk xam na ne danañ am ay jafe-jafe euh, danañ am ay soxla euh, mu ne nag saa bu ngeen amee soxla nag na ngeen wékku ci man euh, seen xel delloo ko ci man man yàlla ngeen ñaan ma su boobaa itam ngeen dem ci ñi yàlla dénk ndax lépp loo gis am nañu ko yàlla féetal jagleel leen ko comme ñu mel ni ñun su boobaa ñu ñëw sàkku ci ñun waaye bu boobaa ñu ñu teg ko ci fulla ak ci fayda comme ni ma koy waxee rek saa su nekk ak ragal yàlla ah, ñaanal leen li ci des nag ci loxo yàlla na nekk ba nga xam ni amuluma ko limite man euh, waaye nag du tee la ma ca xam rek fa laa waaye daal dinañ ci faj aajo dinañ ci faj tawat euh, loolu moom yàlla dimbali nañ ñu ci. ndax léeg-léeg nit feebar euh, ba bañ jaaxle ci. ñu dem ci docteur yi ñu naan day faatu wala ñoom ñu ne gisuñ dara seen pexe jeex ñun léeg leen ñu mën ci dara ndax euh, balaa ñu koy euh, laal bu boobaa euh, danañ ko xool ndax am na téere buñ jàng bu tudd xel mu nujoom xel mu nujoom mooy xam-xamu biddéew loolu tubaab sax xam na ko mooy euh, xam-xamu astrologie su boobaa loolu la ñuy jël sukkandiku ci jël turu doomu aadama bi jël turu yaayam su boobaa soo ko boolee dina am biddéew bum la jox étoile bu la jox étoile boobu soo ko jëlee am na turu yàlla boo koy booleel dina la génneel saraxu nit ki ak kii bu dee feebar la lan moo ko dal bu dee aajo la lan mooy aajo bi nga xam ko mën a nag jël saar ba nga ko mën a booleel saar boobu tamit bu dee da nga koy booleeg plante jël plante ba muy àndal nga defal ko nit ki su ko defee aajom faju bu dee ku feebar la bu dee koo xam ne day sàkku liggéey wala muy sàkku place wala mu nekk ci place bañ ñu wàcc ko wala bañ ñu xeex ko wala koo xam ne dafa bëgg ñu aar ko xam nga wala koo xam ne dafa bëgg a tukki mooy li ma la rek aajo yi dafa bëri mënuñ ko détaillé fii waaw waaye daal mooy muy def di dindi moom la arab di wax dafon ak jal bu maanaam luy jañ ak di ñoddi yëpp euh, asraar daf koy def euh, man xaw ma lu dul arxuraan moom rek laa jàng te arxuraan nag mooy lépp nag ma xamal la ko lu nit mën a xam arxuraan mooy ndey ji arxuraan euh, moom mooy nuuraan yu xam-xamu leer la xam-xamu leer na moo mën xam-xamu sulmaan yu fuuf euh, moo tax ma ne la man moom laa xam te loolu ma xam nag mooy le meilleur muy arxuraan ba nga xam ne man mën naa ci lu bari daal du ma ne nag xam naa lépp waaye yàlla dimbali ma mën naa ci lu bari koo gis xeet boo gis am na réalité am tubaab yi ngay gis nii am nañ seen réalité bopp yoo xam ne saa bu ñu jaaxlee mbaa ñu kii fa la ñuy dem daw ñaani fa seen aajo ñun itam am nañ suñu réalité mooy li yonent bi wax doa salaanu ñaan mooy ngànnaay jullit yàlla bàyyi nañu fi arxuraan kon lépp lu ñu dal mbaa mu jaaxal lëmbe ci askan wi nañ daw daw dellu ci yàlla dellu ci ñaan lu dem nag fañ war a dem ndax comme li ma ko wax jamono ji dafa lëba joo léegi gis nga sax li ñuy yekk ñaankat yi da ngay toog sax di si yow mi ci nekk mm-hmm. waaye terewul nag fa ndox daan taa ba tey ma nga fa Euh, te loolu am na fu nekk ndax euh, liggéey boo gis am na ñu ci nekk di ca ras dem waaye terewut nag kenn ku ne xam nga ne ñaan am na <laughs> waaw mooy li ma wax rek bu ñu ko bàyyi ñi ko moom su ko defee euh, dañuy ñaan ci yu bari waaw comme yu demee noonu maanaam ci wàllu sëy te boo gisee jafe-jafe sëy léegi dafa bëri maanaam sëy yi tas gi dafa jafe avant loolu bëri na yu koy waral léeg-léeg nga gis mu doon ci ku góor ki maanaam ñàkk wér gi da cee am maanaam ndax góor ñi ñu bëri wératuñ ci wàllu néegu sëy maanaam ci buñ tëddeeg seen soxna duñ leen mënal dara euh, beneen bi ci des ñenn ñi dañoo am rab rab ak ñun ñoo dëkk euh, damay faral di dégg nag nit ñu naan rab ak jinne di coow di ko ndamook yooyu du dara gis nga yàlla li mu dénk doomu aadama dénk ko kenn gis nga ku ma dégg muy ndamoo jinne mbaa ay rab naan mën naa koo faj ak dama koy gis ak reetaan may sax jàpp gis nga yàlla li mu dénk doomu aadama dénk ko kenn Euh, rab du dara maanaam mbindeef la comme ñun waaw te jinne li yàlla dénk adama doomu adama dénk ko ko ndax yonent yàlla Suleymaan moom la yàlla dénkoon jinne yi ak lépp topp ko te jinne bu amun pouvoir bu doon xam lii xew suba maanaam kon keroog ba ko ba su ba fi yonent yàlla Suleymaan di jugee maanaam yëguñ ko yonent yàlla Suleymaan da leen a liggéeyloo toog ci seesam ba faatu na bu yàgg ba jóge fa jinne yi di ko liggéeyal la leen xamal ni kii jóge na fi dañoo toog ba gis max yi bant bi di maxe kon junne bu doon xam luy xew suba booba ba leen yonent yàlla Suleymaan di liggéeyloo kon dan naan duñ ko def ndax kii dafi waaju jóge kon jinne du dara jarul ndamoo damay gis nit ñi di ndamoo du dara ba tax na léeg nga wax ko mu rëy ci nopp doomu aadama bi ba tax mu naan waa ah, kii li muy wax ak rab ak ñun ñoo dëkk ndax nit koo gis am na rawxaan bu ko yàlla booleel am étoile waaw loolu sax bu ko jataay bi may woon yéen ñi kenn ku ci ne mën naa la wax nu sa rawxaan tudd mën naa la wax nu sa étoile tudd loolu ci xam-xamu astrologie la nekk xam-xamu xel mu nujoom xel mu bidon boo ko jàngee yàlla dala ci may ay calcul chiffre rek looy def la su ko defee euh, nit ku nekk day am rawxaan léegi nag euh, rawxaan boobu day dundu euh, te li dundal sarax la léegi nag nit ñi dañoo sàggane seeni sarax sàggee ne ñaan lu ci seen bopp ngir seen rawxaan bañ a ñii nag ñenn ñi seen rab moo leen koy teg ba tax seen sëy di yëngu ñenn ñi ñàkk wér moo leen koy teg dégg nga euh, ñenn ñi tamit <coughs> ci jinne yeeg yi fi am léegi xam nga lu nu nga fi accident yeeg yooyu yëpp ay rab ki jinne ak yooyu la te dañ leen a war a saraxal ndax sarax boobu lañuy lekk gis nga benn sago képp boo ko tëjoon ci barab euh, lu yàgg joxoo ko lekk bu yàggee mu jéem a def nu mu génn asamaak nag rab euh, moo waral yu bëri yooyu nag dañ leen war di saraxal ku ci nekk xam saraxam mas naa ko wax ci benn vidéo ne képp ku saraxam képp ku bëgg a xam saraxam ñëwal seet si ma mbaa nga woo ma téléphone kese fi ma toog dinaa la wax sa sarax te loolu bu la neexee soo ko xamee jarul ngay dem ci benn sëriñ sa nit ku nekk sa sarax mooy sa mot de passe ci misaal ni ma la ko mën a expliquer su saa boo jaaxlee mbaa nga feebar mbaa ngay wuti aajo bu la jafe boo defee sa sarax sa aajo bu faju jarul ngay dem ci benn sëriñ lii ñuy def du commerce nañu xam ne du commerce mm. waru waruñoo toog fii di xaar pour nit ñi ñëw ci ñun du ñaan la euh, dafa nekk loo xam ne dafa war a nekk loo xam ne ci ñun euh, mayuk suñ borom mm. waaw du ñëpp la yàlla di dénk ba nga xam ne ku xamul ñëw ci ñun waaye waru ñoo toog di ko def commerce tawat yi moom comme li ma wax rek dañuy faj lu jëm ci wàllu néegu sëy comme koo xam ne dafa am jafe ci wàllu kat loolu moom macha allah dañ ciy def lu yéeme waaw euh, ci réewu tubaab yi muy jugee rek macha allah naw nañ ma ci lool euh, dama ciy def lu dara jarul dama koy faj ndax euh, dafa lëmbe askan wi léegi da ngay gis ñu bëri mën a lu tun seen soxna dara rawatina da gis sax ay ndaw bu njëkk ci mag lañ ko xamee woon te loolu bëri na lu koy waral <clears throat> lu mel ne ci xeetu lekk yi la lenn li lu mel ne ci xeetu nit ñuy sëyee la parce que euh, sëy dafa am façon bu ñu koy defee lekk sax dafa am noo koy defee bu dul loolu bu yàggee mun na laa sax indil feebar rawatina nag sëy euh, te boo xoolee téere yi am na nuñ ko jàngalee maanaam bu dee yaa ngi nekk sa soxna dañ laa dénk na la maanaam euh, weer wu ne na ci sëy ñeent maanaam semaine bu ne benn yoon loolu soo ko dee def euh, di nga dund ba am téeméeri at mbaa nga dund ba am quatre-vingts ans sa ngóore dana fi dana fi nekk mais dangay gis léegi benn góor toll ci diggu ndawam euh, ci genn guddi mu sëy ci juróom yoon léegi comme mën na ko nag moom mi ngi jaay ngóore te xamul na loolu daf koy rey xamul na loolu bu waroon am ngóore ci quarante ans ci vingt ans la yem moom dootu ci mën dara li may wax ni képp ku mu arrivé xam xam nga ne li may wax lu am la deuxièmement bi euh, lekk yi da koy def troisièmement bi sëy ba pare nga jug naan ndox xamuñ ne loolu day rey góor waaw sëy ba pare quatrièmement bi xiif di sëy loolu day waral kii cinquièmement bi sunu façon lekkin yi yooyu yëpp dafa bokk ci liy waral néew kàttan waaye yooyu nag alhamdulilah ba ñu yàlla dimbalee ñu am luñ koy saafara yàlla dimbali nañu am nañ ci garab yi ñu koy am naa garab gu may defar boo xam ne maa ngi ko tuddee laax bi mm-hmm. kooku garab la boo xam ne téeméeri plante yu différent laa koy defaree euh, mu doon xam-xamu cosaan boo xam ne mag ñi ñoo ko daan jëfandikoo xam nga wàllu néew kàttan léegi rek la bëri mais bu njëkk amul woon sunu mag ñi nag am na ci yuñ daan tënku garab googu nag ci yu mel noonu la bokk su yàlla dimbalee bu fekkee ne dara mosulaa jot ci néew kàttan bu ñu la ko joxee da nga dund ba am téeméeri at ci kàttanu yàlla dootale mukk incha allah rabbal alamin laa bi laa ko tuddee waa deuxièmement bi ku mu dal nga xam ne seetlu nga ne da ngay seetlu dangay ngay gaaw a yeggal ci sëy bi wala su awra su jugee ba ngay waaji sëy su soxna mu wàccaat wala nga am benn yoon rek pare ci kooku ñëwal seet si ma am na garab gu mu defar gu ñuy tudd xuwa xuwa baatu arab la mooy moom lan moo tax mu tudd moom nag garab gi moo garaaw te boo xoolee arab alphabet bu bind daf lay jox benn lu mu nombre chiffre xë cinq la waaw six la muy onze te onze dafa am turu yàlla bu mu jàpp ci baatin muy jalal ismu jalal onze la Fatiha tamit boo ko xoolee ci biir am na onze mim ñoo ci nekk ma xam ne ci xam-xam la tegu te garab gi maa ngi ko defaree onze plante yu bokkul ak ay turu yàlla xam ne par onze la par onze la ba muy onze fois ba pare boo xoolee onze malade yi lay faj mm. ma ne kon xaaral ma tuddee ko xuwa garab googu nag. day faj néew kàttan day faj kuy gaaw a daanu day faj hémorroïde nga doon laaj day faj ndoxum siti day faj ballonnement day faj jigéen ju tëw am doom day faj euh, ku am tension même ki nga xam ne dafa am glycémie sax daf koy régler ba day jàpp ne diabète dalatu ko euh, ak ay problème mu digestion mbaa nga am insomnie ba muy mat onze jàngoro moom garab gu yéeme la yoo xam ne moom it euh, dañ koy defar day fajaale wàllu néegu sëy ba noppi itam day fajaale jàngoro yi ma lay wax am na beneen aussi bu ma defar sunguf la maa ngi ko tudde doo daanu garab la goo xam ne moom bu doyaar la suñ la ko joxee <laughs> moom kenn mënu lu ko misaal bu ngeen bu fi nekkoon sax xam naa ni góor yàlla yi moom dinaa leen ci jox ñu mos ci waaye incha allah bu ngeen fi ñëwaatee fekk mu ne fi moom it mu nekk lu jëm ci ci ci ci wàllu waaw incha jigéen ñi moom seen ay problème bari naa ñu bëri dañuy ñëw pour ñaan lu ci wàllu euh, borom kër ñenn ñi dañuy ñëw di ñaanlu ci seen sëy ndax sëy yi tamit yëngu na ñenn ñi dañuy ñëw di ñaanlu ci wàllu am doom euh, bëri na bëri na ñenn ñi dañuy ñëw di ñaanlu ci ku ñuy bëgganteel ndax dañuy gis ku ñëw rek demaat waaye yooyu yëpp comme li ma wax rek boo jàngee lasraar du la jaaxal gis nga asraar moom boo ko xasee ba maîtriser yàlla xam na ni day mel ne médecin bi nit ki bu ñëwee ba wax la aajoon jarul sax nga nekk di seet man duma seet fi mu ne nii waaye soo ñëwee dama naan la dama lay diglu waxal sa soxla waaw soo waxee sa soxla Euh, dinaa la déglu boo demee man de damay yaakaar muy tas wala sama mbir day dëgër damay xam lan la damay xam automatiquement damay xam lan la ndax jàng naa la sara comme ni ko médecin bi jàngee ci téeréem ba nga xam ne tey ku toog na ko damaa feebar euh, mu ne la ndax nu lay def da ngay sëqat wala ban heure la dana xam ban maladi la lasaraar itam noonu la mel Euh, seet moom leen rek laa ci def seetu sëy wala nit ku feebar wala ku bëgg a xam sara xam mais bu passé la lu ma toog naan nit ki lii ak ay nang parce que loolu l'islam def ko tere te man alxuraan lay jëfandikoo lépp lu l'islam tere du ma du ma ko laal yonent bi moo daganal ne seet ci sëy wala nga war a dugg ci kër wala nga war a jënd oto bu njëkk moo doonoon fas xam nga waaw wala nga war a dugg ci maanaam liggéey wala dara ñeent yooyu dagan na yooyu moom macha allah maîtriser nañ ko mm-hmm. seetu sëy lu ma la ci wax du dañ tey boo waroon a dugg ci sëy waaj war laa takk lu ci nekk dinaa la ko wax doom bi nga war a am ak bi nga war a taawloog sëy bi ni muy déroulé lépp dama la koy wax bu dee baaxul gaaf la dama la koy wax bu dee sëy bi day am ay coow dama la koy wax bu dee coow yi tamit am na lu ko mën a saafara dama la ko te lu ma la ci wax du doñ ndax seet la boo xam ne mi ngi jógee ci ku tedd ki Cheikh Ahmad Bamba maanaam daan daan xëy rek boole nit ak nit maanaam euh, ne suba dama leen boobu fekk na xool na ba noppi te loolu ni ñu koy xoolee ay calcul rek la mooy li ma la wax ci xel mu nujoom la la la jóge maanaam xam-xamu biddéew chiffre waaw incha allah. waaw xam nga euh, di ñaanlu sama wujj bi yàlla loolu moom fexe ba bañ a am wujj moo ko gën bu fekkee waaw am na man am na darab yu may defar yoo xam ni bu fekkee mosoo am wujj su ma la ko defaralee kooku man rek maa koy defar Sénégal xam nga nee naa la dem naa ba Inde. jàng fa xam am na drap yu may defar ak ay crayon yoo xam ne ci bët lañ koy def soo ko lalee nga tëdd ci ak yàgg sa borom kër du ngeen masa mujj te li ci gën a garaaw tant mi ngi yeewoo ak yow ci dra bi da lay xëy di la gën a bëgg moo gën ngay rey rey moom daganul rey yàlla rek ko yeewoo euh, bu dee ki nga xam ne mosul am jëkkër célibataire bi ñëwal ñu defaral la ko rek nga passé loo ko del xëy di rombante góor ñi rek léegi nga dajate ku baax ku jullite ku la mën a yor yor la incha allah. te doo ko sàkk no lu wér laa leen wax waaw am na yeneen ak yeneen yu ñuy defar xam nga darab boobu tamit bu la fekkoon nga am wujj euh, bu ñu la ko defalee dootoo amaat beneen wujj te li ci gën a garaaw bu fekkee da nga am jafe-jafe am doom darab boobu am na téere bu ñu koy booleel jox la ak sa saafara boo xam ne dañ ciy naan di ci diw sa biir bi nga wax ñu tamit doom bi nga bëgg lu garaaw laa lay wax ni soxna si wax ñu doom bi nga bëgg bu dee góor la wala jigéen ñu ñaan ci yàlla nag mooy maye xam nga li ma jaaxal ci africain lu tubaab bi wax mu gëm ko tubaab dana toog fële jël sperme boole koo jox ko beneen jigéen mu jur kii tubaab dana toog fee dala tamit xool ne la jigéen ngay am te doo ko weddi mais lu nit ku ñuul ki wax maa nitu yàlla bi wax ñu sikki sàkk ko te moo ne nitu yàlla bi la muy gis ak di ko xam ak di ko yëg tubaab bi du ko xam du ko yëg ndax lii direct ci suñu borom la te lële ci ay xam-xam yu ñuy naataable rek la mën naa am mën naa bañ am su ko defee nañ delloo lépp ci yàlla dara amut wala mënta am gàtt xam-xam rek la neel xaw ma waaw waaye dara mën amul moom wala am kooku gàtt xam-xam dëgg mënu ko weesu su ko defee li ñuy wax tamit foofu la sukkandikoo dara boobu suñ la ko defaralee jox la ko ñaanal la nag parce que man mayoo ma yàlla may man moom loolu dama koy wax su ko defee ñaan ci yàlla ah yàlla suturaal ñu ci bu dee ay seex la yàlla dimbil nañ ci ñu ngi koy def di ci gis bu dee eh, benn doom la bu góor ñu fasal la ko ci yàlla ñu ngi ci suturaal bi dee doom bu jigéen la yàlla ñu ngi ci suturaal dara boobu tam day def loolu waa kay incha allah rabbal alamin waa kay waa ñu ngi sant yàlla nag bu baax eh, di wax ne rek li ñu fax yëpp na xam ne doomu aadama buy wax rek lañ ñun amuñu. mënuñu xam yàlla rek moo am moo mën moo xam beneen bi ñuy wax ne gis nañ ne accident yi bari na ci réew mi dégg naa fi ñuy wax naan ay sarax di tiital nit ñeek waaye xam nga lan la nañ bàyyi man Europe gee laa jóge tëli yaa ëpp fuuf la ñuy daw foofu duñ ko fi daw euh, am na tëli yoo xam ne ay virage la am na tëli yoo xam ne comme ni fii mel la mel chaque jour ñu ngi daw te doo dégg accident man mii ci tukki laa dëkkoon xam nga lan la problème bi lan la ñàkk yar képp la nañ delloo si waat xel yi am yar am i tegin daw ndànk euh, gouvernement bi itam mu defar tali mu normal ñaar yooyu su dajee jàmm rek am nañ dañu jël yenn yi di bokkaale nañ xam ne yàlla fi nekk waaw tubaab yi duñ jaamu yàlla duñ tudd yàlla tey jàmm ak salaam dong lañ dëkke bu taw waree jot day taw toog naa fee reeraan sax dama doon jàpp ñu naan ñii di coow fii damay xool internet bi ñi naan euh, Sénégal tawul nañ bàyyi ñu so tubaab yu gàtt yu bon la ñuy sol te ma taw sëñ bi yàlla moo fi nekk nañ bàyyi lu ñëw rek ñu bëgg ko jël bëgg a jël laneen dogal ko ci yàlla sax bu yàggee dañuy jëpp nañ delloo xel yi ci yàlla man loolu rek laa amoon ci lu wax fii moom jàmm rek fi am incha allah rabbil alamin waaleykum salaam wa